des mooy ma jàpp dem julli tux xam ngeen ni coow bare ci nekk waaye li a leer wala waaw ñu barkeel laaj xam ngeen li ñuy wax laaj ci boppam gannaaw lekk ko tudd tur yàlla wala nga dugg si jàkk araam na ndax xet bu bon bi xet bu bon bi def ko waru la taq malaay bi itam dañ ko sib te alxuraan boo koy jàng malaay bi dañuy fon sa gémmiñ jàkka yi dafa xam ngeen ne béréb bu jaamukaayu yàlla la leer yàlla yi daf fi wàcc ak malaayika yi léegi bu fekkente ne nit ki gémmiñam xeeñ na poon poon bi xam ngeen ne olama yi ko doon daganal dañu ne gisuñu ko ci alxuraan gisuñu ko ci xaddis alxuraan ak xaddis dañuy ñëw fekk lu nit ñiy def te jubul ñu bàyyi leen ko fekk lu ñuy bàyyi te mu jub mu sant ko waaye la xamagul ñëwagul bu leen waxee duñ ko xam waaye boo seeti biir alxuraan da nga si gis wa yuhilluhum tayyibaat wa yuharrimu alayhim alxabaa'isa ak yi ñuy wax ne araam na ci bépp mu kàllax mu jëfandikoo loo xam ne xamul àtt ak yàlla ci ceeb ceeb bi ma loolu rek fa rawatina itam dégg yàq la cigarette yàq la ndax li nga koy jëndee te du la jëriñ dara boo ko defee nga bañoon koo def mu ëpp njëriñ te itam balaa nga ko bëggee ko ci alxuraan nee na bu leen lor seen bopp te médecin yëpp d'accord nañ ci daje ci ne si si euh, kii euh, poone cigarette dafa am nicotine te nicotine dafay yàq xol te day indi ay maladie te doomu aadama jullit dagan bu jëfandikoo loo xam ne daf koy lor wala dafay yàq santeem léegi nag bu seetoon ne waxuma la sax boo ko dee tux ñi dul tux ga di leen lor te lor benn bi yonent bi ngeen sallallahu alayhi wa sallam na loxoom ci kaaba gi ne yow tabax bi ñu tabax ngir yàlla ci yàlla ñu di la aj ngir yàlla màbb la ñu tojaat la ma màbb la muy nangam yoon moo ma a lor jullit benn yoon kon nag ngeen xam ne ma ne sa saxaar soo fu ngay kii ci ñi nga xam ne du ñu xam ne daf leen du la arab la waaye li ci rek moo di bu bon gi boole ko tur yàlla boo tur tur yàlla daf lay rëbb nga xam ne ne boo dee def li alxuraan tere lépp da ngay jàng alxuraan alxuraan ji daf lay rëbb naka noonu itam tur yàlla tur bi ci boppam ak malaayka yi nga xam ne ñooy fóon sa gémmiñ nga amee xet bu naqari moo xam cigarette la moo xam laaj la wala yeneen xet noonu la bone ci dindit bi te noonu la xaraamee itam te noonu la koy lore. waaw waaw waaw waaw waaw Fatou Seye man dañuy gàttal kat. waaw. aywa boobu da ngay def boo ko jotee rek ñu dem bala ñu jëli jëli. waaw jëli ñibbi. waaw d'accord. Hmm? ci wàllu ci wàllu cigarette boobu ñu doon laaj. waaw li ci gën a gàtt sax mooy ñun ay taalibe te taalibe du dox lu dul ci ndigal yaakaar naa ni képp kuy taalibe murit day dox ci ndigalu xaadimu rasul te nee na ndigal bu rotee ci Cheikh Mamadou Rabbi mat na ci taalibe bi